asalaamualeykum suñu mbokki internet yi maa ngi leen di siyaar baax di leen nuyu di am kontaan ak mbégte trop ngir tewaat fi nga xam ni moom mooy seen émission ëttu Tawhiduna ëtt bi nekk tey yaakaar naa ni dana dem ba àgg ci dëkk bu ñuy wax Argentine waaye nag avant boobu dafa am lu bari loo xam ni war nañ ko mën a tënk tuuti rek mooy yóbbante bi nga xam ni jigéen ñi européen yi ñu ma ko yóbbante di sàkku loolu nag ñu amal ci ay waxtaan yu am solo mooy jigéen ñi nga xam dañuy sëy foofu ci ërëb ñu ngi may wax ni dañ fa sonn lool rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo fa am njaboot te bari na xéewal yoo xam ni seen i borom kër dañ koy jël seen loxo te xéewal yooyu mu tukkee loo xam ni seen fayub njaboot la te ñoom danañ koy yittewoo kon nag xam nañ ni loolu dañ ci bàyyi xel beneen yoon ñu ngi ci amal ay gëstu yu am solo dañ ko andi ngir suñu soxna ya fa nekk xam ni ñoom ñëpp tamit ni liggéey boobu bàyyi nañ ko xel bu baax a baax a baax a baax waaye nag buñ jógee ci loolu dafa am kaa boo xam ni spécial la fan yi passé ku ne xam ni maa ngi wan Argentine ci mbirum benn jëwrinu daayra waaye tey nag maa ngi waat Argentine ci problème mu problème boo xam ne ni daana ko na mu mel ci doy yéeme na trop trop trop problème boobu nag ma nga dox ci benn jëmm joo xam ni ñu ngi koy woowee ci dëkk boobu Abdoulaye juuf ma nga ci Argentine mu am mbir mu yéeme joo xam ni dafa ko dund ba pare dal ko mbir moomu nag kenn ku ne ci yéen war na koo xam ba jële ci njariñ bu baax baax baax a baax a baax mbir moom moom mooy lan mooy loo xam ni dafa dox ci digganteem moom ak ay mbokkam moo jamono boo xamee ni am na ku ñëw ci moom nax ko naxin boo xam ne valeuru alal ja bari na bari waaye boo xam ne kenn xamul nu mu toll nax boobu nag ñu ko nax mu bari lool ay européens yu ñu koy nax partout dans le monde mu bari ñoo xam ni dañu ciy dugg ci dugg boo xam ni du ànd ak xel mu sell ak mat-mat ndax Olof Njaay daa wax ni ku baax ku ne warna bayi xel ci bopam ndax bax rek ci réew mi nekk danger la ndax so baxé do contrôler sa bop da ngay japp ne nga mel la ñepp mel fekk ci tot fekk da nga tromper wu da nga joom waye nak mbir mi bo la ko déggé di ngeen xamni ni dëgg lolé amna ci solo ablay Diouf mi ma nga nek Argentine ay rakam ñu ngi Sénégal waye nak rakam bi nekk Sénégal amna ben xaritam bu mu xar tool maanaam Abdoulaye Diouf ci boppam rakkam bi mbokkoon bokkoon ndey ak baay benn xaritu rakkam moo ko dugal ci jooyu la jëya nan la ko dugalee ci jooyu jëya mooy rakkam boobu daf ko xamal ne ko ne sama xarit bii de am na mbokkam boo xam ni mbaa wëlëre boo xam ne dafa gaaw lool pour mën a yóbbu doomi aadama foofu ca Argentine mu waxtaan ko ak rakk rakk ji wax ko xarit ba xarit ba wax ni jàppandi na maanaam buñ ci dugalee xaalis rek loola mën naa jàppandiku laa Diouf nee na ma wax ak sama rakk mu wax ak xaritam ba xaritam ba wax ak waaja waaja tënk ko xamal ko nekko daal ne bu nu amee lu toll ci ñeenti million buñ ko fayee ci sa rakk bi dina mën a ñëw Argentine ci yooyu jamono nag xaritu rakk ji ki muy waxal kooku mu ngi woon dëkk bu ñuy wax Burkina Abdoulaye Diouf nag jotul xamanteeg waa jooju waaye rakkam la xam rakkam xam ak xaritam xarit ba xam ak waa yàlla dogal moom Abdoulaye moom mu jël ko dana waa ji di dëgganteeg waa ji waa ji xamal ko ne daal ne saraka jooju bis boo ca fayee 4 millions mën naa ko indi ci réew mi ci réew moom nga dekk muy Argentine ci biir loolu nag am na beneen xale boo xam ne ma nga woon Côte d'Ivoire ca la xarit ba xamante woon ak moom waa ji nga xam ne moom moo wax ni day yóbbu rakku Abdoulaye Diouf foofu ci Argentine jot na def ay mbir tuuxi duna yoo xam ne fexe na ba jël xale boobu Côte d'Ivoire yóbbu ko ci Argentine loolu mu teg nag acte boobu mu nekk acte boo xam ne xeetum nax la ngir bu àggee mu gën a am confiance ne kii mu gis nii moo ko fi indi ab laa juf nag loolu la ko yóbbee naxe booba moo war rakam waxtaan ak moom di dëggante ak waa ji ak rakam ne waa ji léegi danaa jox sama rakk 4 million su ko defee nga mën koo waajal moom mu doog mën a ñëw yàlla def nag ca jamono yooyu tombe ak 2014 2015 Ablaye nee na may yónnee sama rakk te ko yónnee ci bunt yi nga xam ne ci lañ mën a yónnee ay xaalis bi mu ko yónnee nag ca la waaj a jóge Burkina ñëw senegal waajal rakkam jooju yóbbu ko Argentine Ablaay nag xel ma dal na kontaan na am na mbégte ndax xam ngeen Sénégal bu nuy dox lu mel ni mbiru dem Europe dañu koy xaw nëbb nëbb googu ma ko nëbb nag moom Ablaay yóbbee ne ko jëyee ju bare Sénégal la ko nëbbee waaye nëbbee ko fa mu nekk ci Argentine ndax Ablaay nee na fa mu dëkk ci Argentine dafa dëkk ak kër famille famille boobu mu fa dëkkal nag muy ay doom bàjjan di ay mbokk di ay mbokk moodu moodu ñu bari mu xibaar leen ni sama rakk de maa ngi koy bëgg indi fii benn waaye daal moo may toppatoo ay këyitam tubaarakal waa ju baax la te jóg ñam fa fekk mu ñam mu dëkkal ñooñu ne ko waa loolu ne lu baax la kon soo koy def dañu cee war a boole ñun tamit ndax ñun ñii ñëpp kenn ku ne am nga rakk Sénégal Ablaye ne ah mën na nekk ah. gaa yi ne ko kon ñaata la mu ne kenn ku nekk ci xayma yooyu 4 million la mooy dagg bii yaag dem yaag frais de voyage ak yooyu waa kër gi ne ko d'accord léegi da ngay woo waa mu boole ñu ci mu tombeek waa kër ga mu nekk juróom benn ñu fa nekk ak Ablaay moomu muy juróom ñaar kenn ku ne léegi nag mu ngay waaj a fayal rakkam lu toll ci 4 million pour mu ñëw Argentine kon léegi mbir ma nekkoon benn nit léegi far naa nekk juróom-ñaari doomu aadama yàlla def nag Ablaye juboo nag ak waa këram ba nekk Argentine ca loola dajale xaalis yooyu yëpp nag di ko envoyé rakku rakku Ablaye bi nga xam ne moom moo nekk fii ci Sénégal pour waa ji mën a jëf leen teg jëflanteeg am jooju pour yoon ba mën a tegu ci yoon. waa ji nag doon ku jàmbaar lool nag ci liggéey bi man ko lool nag fexe ba lijël leen lijjanti leen ay passeport fexe ba lijjanti leen ay kayit ak visa yoo xam ni yëpp amul kenn ci mbooloo moomu ko xelam ñaaw jotee ni lii moom ay naxee mbaay képp la dem na nag yemu ca ba daggal leen i biyee yemu ca dem na yi tamit moom ba soreek ñoom lool ba def lépp lu war ci voyage ya te Ablaay moom yëgul ne lii am na lu ci laxasu juróom benn mbokk yi Ablaay ya nekk foofu Argentine yëguñu ne de am na ci lëndëm xale yi nekk Sénégal yëguñu ne am na lu ci lëndëm léegi nag xale ya gëm nañu mbir yépp daana ko sotti na xale yi nag war nañoo jóge benn dëkk fii ci dëkk yi ci dëkku àll yi war faa quitté nag pour ñëw Dakar pour gën a jege si bis bi nga xamee ni ca la dem Argentine xale yi nekk waa ji woon na leen xamal leen ne mën ngeen a quitté ñëw dal benn hôtel place fii bu nekk ci ville bi fii ci dakaar su ko defee boo leen fi ñëwee àjjuma lundi incha allah bu neexee yàlla da ngeen fi mën a jóge daal di dem ab nee na bi mu waxee loolu. mu tombek ci juróom-ñaari xale yooyu ñett ci ñoom jotuñu woon am passeport jotuñu woon ni yor tamit argent de poche ndax waa ji daf leen xamaloon ne fawu ngeen am kenn ku ne argent de poche ci poosam Ablaay ne ko nag ñooñu seen këyit génnagul nan nga leen mën a yóbboo mu ne ko loolu benn problème nañu ànd ak xale yi ñëw loolu de saa réglé naa ko fii pare moom bu ñëwee rek def koy mën a jën bi loolu amee nag xale yi quitté nañu aajama ci ngoon ñëw jël hôtel nekk fii diggante samedi ak dimaas lënd ñu war a xëy fajar teel daal di yeweeku daal dem dëkk bu ñuy wax Argentine fekk seen mag boobu ñuy wax Ablaye bi loolu amee nag Ablaye nee na ca ajuma ja dëggante nag waaja samedi dëggante nag waaja dimanche tamit dëggante nag waaja ba dimanche ci ngoon nekk nag dimanche ci ngoon googu nag ci la lu bari di xew techniquement bi may wax ci émission bi wax ne ñaare l'information dina ñëw waa kër gi di seen waa flash point com def ci liggéey boo xam ne kenn du ko xam def ci liggéey gu mucc ayib boo xam ni kenn du ko xam même ki indi kaay sax du ko xam liggéey boobu nag moom laa di firndeel nii nan la waa ji def ba jël xale yi seen argent de poche bi ñu yoroon déposé leen ci hôtel bi ñu nekkoon daxawu ba xale yi duñu comprendre ne lii am na lu ci laxasu parce que waa ji ñëw na ci ñoom xamal leen ni ne fii ngeen dal hôtel la seen argent de poche yi dañ koy xaaj ñaari xaaj xaaj bu njëkk gi fii ngeen koy dépassé maanaam da ngeen di fay li jot nekk fii maanaam boo doon fukki junni léegi da ngay indi juróomi junni xale yi kenn ku ne ci ñoom lam dajal la woon ñii cent cinquante mille francs la woon argent de poche ñii deux cent mille francs ba ñii quatre cent mille kenn ku ne xaaj la nga yor boo jox ko léegi gis ngeen juróom-ñaari xale yi kenn ku ne fay na 4 millions Ablaay waa ji dëxëñ na xaalis ba léegi nekk waaja ba ngay wëgg nag wom mi nekk lañ jote woon am nekk ak asu néew dese ko waaj nag jël na ne xaaj ba ca dimanche ca ngoon ga ne leen nekk ca lëndi ba buñ yéegee ca avion ya xam ngeen ni kat comme may ànd ak yéen damay téye lépp bu ko defee bu wàccee ca foofa bis yaak yu ni mel nga xam dafa révéloo xale yi loola ba xale yi daanaka ñu ngay dund lu nuy wax science fiction maanaam dama réew ma waaye sax xel dem na bu yàgg ci réew ma ndax ay façon communication bu waa ji jaare ak ñoom waa ji nag ca dimanche ca ngoon ga jël na ne xaaj ba leen nag ëllëg ci lënd ga boo leen yeewoo nag boo takk seen bagage oto ba dana yegg si ba limal na leen sax turu oto bi nga xam ni moom moo jóge ci benn entreprise bu mag boo xam ni ma nga ca réew ma ci gën a yéeme nag mooy waaje ci boppam yére bu mu sol mardi du ko sol mercredi blazer bi nga xam ne moom lay sol blazer bi dafay am étiquetou entreprise bi nga xamee ni moom moo war a jël xale yi ci hôtel boobu xale yi nag génn noo sànku waaye loolu lépp nag Ablaye ngay déggante ak moom xamul li xew xale ya ña nga am confiance di bàyyeeku te yëgañu lu xew lundi ba nag ca fajar ga ca la waa ji ñëw encaissé waat nag leneen li nga xam ne moo fa desoon daal ne kon xaaral ma ñëw woo bis ba te moom googu wax dem mooy dem ji tax ma toog fii dem na gisuñu ko ci lundi bi gisuñu ko ci mardi bi ak mercredi bi ba jàpp nag jeudi ba ca lañu ab Ablaye woote ci numéro am ñu xamal ko ne ki ngay woo dafa def soog dafa accident mu ne ko loolu mënta nekk. nee na ma kër karaat woote waat waa ji ne ko maa ngi soo dama feebar damay faju ci appel boobu la ko mu jot ba fi may wax nek yéen nii ablaay moomu nekk nekk ci argentine mujj na ñëw sénégal ginnaaw coow loolu lépp ndax coow dafa bare woon ci réew mi ñi naan moom la àndal ñi naan ànd ak moom moo ko teriande moo bokk ci dil bi ablaay quitté na argentine ñëw nekk sénégal ndax ay mbokki boppam woo nañ ko xamal na ko ne dangaa juddoo ci ngor màgge ci ngor li war naa mën a leer mu am ci xale yooyu nag ñoo xam ne seeni mbokki bopp danoo plainte woon Ablaye ci tribunalu Diourbel Ablaye nag ñëw na senegaal bi mu ñëwee Sénégal nag yowuyu ne na yoon wax naa ko yoon ba yoon xam na ne moom ablaay moom kat taqeewut ci mbir moom dana ko nax nax boo xam ni dafa jéggi dayoo waaye nag bor wa da koy fay ba nu xaymaa xaal ba na mu toll jege na ñaar fukki million ak ak lu teg Ablaye nag war koo fay ay mbokkam baala ñu ko xaalis ba xale yee seen i mbokk baala ñu ko xaalis ba Ablaye nag joxe na dat ne dana ko fay xaalis boobu nag suñu gëstu ak leeral ya Ablaye jot nañoo leeral ne jot naa fay du toll ci fukki million ak juróom-ñaar yoo xam ne jot na ko fay ci xaalis boobu waaye la fa das ba nu xoolee ba xam takkewu dara ci loola dañ ko ko far mujj baal Ablaye nag dem na ci gëstoom xam na koo xam ni kooku moo jëfan mbir ma xam na ko juróom ñun ñuy wax ak yéen na nañu ba xam way juróom xam waaja bu baax waa yàlla dafa dogal ne suñu borom suñu suñu borom daa dogal ne waa jooju nekkatul ci réew mi ba léegi nag ab laay koy wër mbir moomu am na juróomi at mbir moomu nag liñ ci mën a jànge bari na trop trop ni ma ko yàgg a waxee rek ne liggéey bii ñuy liggéey liñ ci jublu dëgg-dëgg du xaste du weerante waaye mooy jur njariñ ngir kenn ku ne ci yéen mën ci bàyyi xel ndax barina na ci rewmi lu nuru lu jup te jubul barina na ci rewmi lu nuru lu bax te baxul te actuellement ni rewmi mi fi actuellement ni modine kep kuy ku bax warna naa xel ci baxayam ndax ku deni sam bax na nga baxé non la ñepp mel do tagu mukk ak ay jëye ginaaw nak lolu mo nekkoon xibaar bi nga xamé ni mom la leen indiloon tay ci émission ëttu tuuxi ko yagg waxé rek yéen abonné ci seen bi mooy li leen noppal ndax ngeen mën a am notification yi waaye tamit di woote demee ci numéro bi saa leen amee jafe-jafe dana tax liggéey bi gën a taw féexe jërë ngeen jëf